dañ doon xuloo di démb dañ doon xuloo te maam yow avant boo réglé woon sa kër lii yëpp du la ci fekk te ñoom hmm, joxuñu la benn respe say doom joxuñu la respe sa jabar tamit joxuñu la respect kër gi mën naa wax sax man kese man fi jox respect te heure boo génnee ne noppi leen ñoom duñ noppi sax dañuy continuer di wax man kese maay noppi nga yaakaar ni loolu rafet na. xëy eh, na amul problème man dinaa ko régler dégg nga. man moom xam nga man boo réglé wu kër gi maam man maa koy réglé de. boo kon nga gaaw réglé ko ndax man boo ko réglé woon dama koy réglé de. dinaa ko réglé incha allah rabbi. Mm, boo ko réglé woon dama koy réglé man. dinaa ko réglé. ah baax na. xam nga man naa ñoom ñëpp buñ ma respecté wul. te yow ngay sama chérie respecté nga ma ne kontaan na ah xanaa loolu doy na la. kontaanuma de kii ko ba pare. dinaa dinaa ko réglé boo ko réglé ba pare man dinaa kontaan. dinaa ko réglé. yaa ko wax. dinaa ko réglé. kon maa ngi egg si biir. man de xaw ma jënd laa yor xaw ma dugg. grand. waaw. naka moom. sonn rek billaay. est bi sànq ba léegi. billaay benn document de laay téléchargé nii pour envoyer ko. gars yi yow. Hmm. fekk yaa ngi sa kool waaw ah, mu de billaay. mais gannaaw wuy ma. fan yii gàll bi. Hmm. ambiance bi fi nekk neexuma dara. amul harmonie amul tous billaay wallaay. ah luy loolu. lu xew ba jàmm encore. na fi bàyyi ayaa ah, ah. chaque jour coow chaque jour que Dieu fait. man xanaa xamoo su ñoom ñaar laay xamee ni papa laay lañ bokk ak yéen. non mais suñu xooloon suñu ñaar mais ni ñoo bokkul ndey ak baay mosuñ ñu àtte. vraiment mosuñ ñu wax Cisco bàyyil wala Mass bàyyil mais à chaque fois Nafi Mbaye Aya Nafi Mbaye Aya ay magum jëmm ñu xool su ñun. kon ñoom ñu ngi seen détail yooyu. ba léegi ñu ngi si. ma ne tey naa la ko wax rek moo su mujj xëy na yow ci mën dara nga wax ak ñoom. ñàkk fayda nag de dara dalu leen lu ñu ay affaire wujjeeg sama yaay fii sama yaay fee détails yooyu noonu amul sens. mais coow jibul comme xamee naa ko nii waaye dinaa si def farata quoi. dafa loolu après naa naa leen ñu toog ma wax leen ay vérité ñu bàyyi seen détails ñuy def nii. parce que amul benn jëriñ c'est mieux barki alxuraan. coow jaru ko. amul sens ñaar. Ah. bul jaaxle. dinaa leen woo ñoom ñaar teg ak ñu bàyyi détail yooyu noonu. yaa koor gi de. koor gi ñëw na pare de. mais est-ce que duñu saal bële. pour la. du war ba ngoon booy di dem di cëcc cëcc. mais loolu yow ah baax na ma dinaa dem de sama lex yi ak biir bi fa ma toj ko. <laughs> waaw dem toj ko. tur bi. déjà. déjà. <laughs> tur la. waa Khadija laa tudd mais xam nga rek nit ñi ñoo yàqale sama tur bi. dama woowee Dija. wax nga dëgg. bon man nag lenn rek laa bëggoon xam naa ne moom mën naa liggéey bi sax du bëri parce que man maa fi nekk sama jëkkër ak samay njëkke ñoom ñoo fi nekk comprendre nga man maay defar sama nekk sama yére jëkkër tamit aussi kenn du ko fóot man maa koy fóotal sama bopp sama neegu njëkk yi man maa koy defar yow daal saal bi ngay defar ak ëtt bi comprendre nga raxasu douche yi ak yooyu noonu loolu rek ngay def. kon man loolu kese moo fi nekk sama liggéey. waaw ak tamit xam nga ñu ngi ci koor gi des fois togg bi nga ma ciy jàppale ak yooyu noonu ak yenn yi su ma fóotee nga weeral ma genre yooyu noonu quoi man ak yow moom xam naa dinañ mën a nekk parce que ay lañ. dëgg la. voilà te nag dama fay nekk di sëy bugguma ku ma bëgguma ko ma wax lii bëgguma ko ma wax laa su ma génnee dem ñëw sax bu ñu waxee ci man sax bu ma ko nettali parce que damaa nekk di sëy yaa ngi dégg. Mm. yow booleel sa xippi ak xool melal ne taximaan wala médecin. d'accord comprendre nga boo ko defee rek mën ak yow ñu nekk si jàmm. d'accord rek laa bëgg. d'accord ah pour pour loolu moom sa xel na daal parce que man boo gisee ma ñëw fii daan doole jàppale sama yaay parce que sama yaay nekku fi moo ngi village. Mm-hmm. sama mag bu jigéen fi nekkal. té mom dafa nek ak jëkëram di sey d'accord waaw kon na sa xel dal dal ci côté bobu un problème dinañ mën a nekk. incha allah <laughs> ma dé tour bi narati la nga ne. déjà déjà. Mhm. tour dëgg bi. Khadija. Khadija khadija wala khadija tour rek bo ci wax rek. bay ma lay wax khadija <laughs> yow na tour bi nan la. man mayatu mayatu mayatu la d'accord kon ba merci kañ lay commencer. suba. inshallah suba nga ñëw inshallah merci ok merci. ok